asalaamaaleykum mbokk yi féete Mbour te di ñu bàyyi xel saa su ne ah, si seen tele bi nga xam ne moo leen di bégal di leen wane lépp loo xam ni am na solo loolu moo waral ñu daal di fas yéene way ànd ak ñoom ngir wane leen loo xam ni seen cabinet bio Rahma muy cabinet goo xam ni moo nga ca Tëngéej di defar ay produit bio di ko distribuer ci réew mi ak bitim réew ngir may ku ci nekk foo nekk nga jot ci ci anam yu sell te moo tax tey ñu fas yéene wéy ànd ak waa Mbour ngir ngeen seetaan yëf yi ngeen mën xam loo leen ca soxla waaye laata ñuy soobu abonné leen suñu chaîne YouTube ma chaîne woowee mooy tax lépp lu ñuy waxtaane nga mën ko xam kon cliquer ci cloche bi abonné ci chaîne YouTube Biorahma dina tax waxtaan yëpp di nga ci am loo ca xam mbokk yi lii ngeen di gis ni bioformat la bioformat la maïs la ak li nga xam ne moom moo di lin pour chocolat fenugrec maca muy ay mélange yoo xam ni daanaka dafa lay may jëm ngir dundal saw cër rasti doli ñu daal di indiwaat beneen boo xam ni fenugrec ñu ko dee wax ulba baax lool ci diabète baax lool ci may yaram waaye nag dafay lay dimbali rek ci lépp loo xam ni daanaka rek soxla nga ko ngir mën a noddantiku gannaaw ba nga feebaree ba noppi ngir mu delluwaat la say cër ci anam yu sell loolu mooy fenugrec mbokk yi xam ngeen fenugrec am na waaye tisane bio loo xam ni day baax ci wàllu diabète ak ndoxum siti muy bio citadine ak bio boo xam ni daanaka dafay baax waaye amuñu foofu ñu indi leen sirop bioforma sirop bioforma sirop la boo xam ni daf lay may yaram day dundal say cër muy sirop am solo boo xam ne askan miin nañ ko amul lenn lu cay gaañ waaye yemuñ ci foofu ñu ni bioénergie baax lool ci wàllu éjaculation précoce baax lool ci wàllu sëy baax lool ci wàllu accompagner waaye baax lool ci wàllu cawate énergie ak jigéen ak mën ko jëfandikoo seen cabinet bio Rahma yemul foofu ndax saa su rek du ñu tàyyi mbukk di wax ne ki dëkk Mbour te dañuy déglu wooteel 77 510 54 21 70 54 21 ñu indiwaat mélange bio bii nag euh, huile la boo xam yoo xam ne baax dafay am solo moo tax seen cabinet ma indi leen crème teint clair muy crème woo xam ni bio la naturel da lay jox teint bu rafet macha allah euh, mbokk yi li ngeen di seen mooy bio citiderme bio hémorroïde mélange coco. jinjeer ak yeneen xeet yu ni mel bi mooy tisane hémorroïde baax lool xam ngeen ne dafa sonal askan wi waaye ndoxum siti tamit baax lool ndax moo tax seen cabinet indil leen ko ak mélange gingembre ñamako ak yeneen xeet yu ni mel ak beneen mélange boo xam ni dafay baax hypertension ak cholestérol ak diabète ak li nga xam ne moom moo di cannelle moo ngi noonu ngeen gis mu baax lool ci ñu ko dee naan ak li nga xam ne moo di curcuma baax lool ci biir ak ci biti waaye mélange beneen boo xam ni jinjeer la ak curcuma mu baax lool ak beneen mélange boo xam ni daanaka rek dafay ndiir gingembre ak petit cola ñëwaat ci beneen crème mélange boo xam ni dafay baax ci ñi nga xam ne dañu am biir muy crème mince da nga koy massé wu de fois par jour dina la dégraisser lu naturel tu am benn jafe-jafe bii ngeen di gis mooy savon la boo xam ni savon teint clair di dindi tache di dindi arne di dindi lépp loo xam ne ay gàllankoor la ci wàllu der jox ko der wu rafet te sell beneen bi ñëwaat ci li nga xam ni moom moo di diw bopp boo xam ni ñoo ngi ko defaree li nga xam ni moo di poudre chébé muy gamme mu am lotion mu am huile am shampoing muy gaam boo xam ni daanaka rek uh, la ca nekk ci njariñ dafa bari lool lool lool lool lool ñu ñëwaat ci indi leen gaam ndoxum siti ndoxum siti dañ ci def gaam boo xam ne dañ koy naan saabu ak crème kon ki am ndoxu siti seen cabinet Biorahma dafa ne la boo xam ni daanaka rek dinay baax ci yow mu composé lool indiwaat savon curcuma curcuma savon baax lool ndax dafa lay jox teint bu rafet rafetal sa der ba mu yànj rafet lool du am benn tache waxu dolli kii cere ki am cere wala yeneen gàllankoor ñu indi la savon curcuma muy savon bu am solo ñu ne savon boo xam ni savon de visage ndax yenn saa kanam gi am acné seen kaay kanam gi am ay picc yoo xam ne daf lay sonal moo tax ñu ne la savon euh, curcuma ñëwaat si bio énergie bio énergie sirop la boo xam ne dañ ko def aide à réduire fatigue général frigidité ak yeneen xeet di ni mel waaye ba léegi mbokk ñu ñëwaat ci savon bi nga xam ne mooy savon de visage muy savon bu lay leeral buy indi dindi picc jox la teint bu rafet da nga koy sëlmu deux fois par jour mbokk ñu ñëwaat ci leneen loo xam ni dafa jëm ci wàllu dënn muy asthme ñu ni la biopecto biopecto dafay baax ci wàllu affection ak lépp lu xeej dënn waaye indiwaat saabu gi savon teint clair xam ni seen cabinet bio rax maa ngi ko defar ngir bëgg ku ci nekk foo nekk nga mën ko itteewoo kon yow mi dëkk Mbour woote 77 510 54 21 ak li nga xam ne moo di shampoing lu ñu nekk ci wàllu karaw woote 77 510 54 21 ah ñu ñëwaat ci beneen gamme boo xam ni gaam teint clair mu am ñaari savon am savon ñetti façon savon ak euh, lotion lépp mu jëm ci wàllu yaram bu sell ak ñu ñëwaat ci li nga xam ne moo di fenugrec gélule gélule fenugrec baax lool ndax daf lay yaram may yaram wu sel ndax am na ñoo xam a ñu naan poudre bi waaye gélule bee ngi nii ñu ñëwaat si mbokki graine date bi mélange la boo xam ni mën nañ ko defaree karité mélange la boo xam ni soo ko def boole karité di ko di yenn sax dañ koy faratal di ko lekk bi mooy graine date bi mbokk yi ba léegi rek ñu daal di woy ànd ak yéen ñëwaat ci beneen bioénergie bioénergie fluidité bioénergie yokk énergie yokk kattan yokk caawarte yépp lu jëm ci wàllu sëy 77 510 54 21 mooy numéro bi Gofio de Milo moo ngi noonu mbokk yi wooteel 77 510 54 21 70 510 54 21 77 510 ak euh, li nga xam ne moo di artémisia mu baax lool ci prévention jëm ci coronavirus ak lépp lu jëm ci wàllu euh, feebaru virus euh, indi leen indi leen savon marron thym marron chocolat savon baa ngi noonu mbokk yi seetaan am teint bu euh, noir wala teint bu chocolat ñu war savon teint clair boo xam ni euh, baax na ci ñi xees savon teint clair a ngi noonu mbokk mi seetaan 77 510 54 21 mooy téléphone bi yaa ngi dëkk Mbour ak crème fess boo xam ni ñoo ngi ko defaree ay produits bio naturel nga ko mën ko diwoo ci sa ginnaaw am daagwaale gu rafet waaye rax ci doole ñu indiwaat leneen lu muy àndal muy li nga xam ne moom moo di huile bi moom tamit dañ koy diwoo bio bu naturel baa ngi ni dañ koy faratal di ko diwoo ci yenn parties yi mbokk yi ñu ñëw wane leen savon bi nga xam ne mooy savon teint clair pour ñi xees ñi xam ne dañu am ay taches noires ay cere wala yeneen xeet yu mel seen cabinet bi yoo raxmaa indi leen savon teint clair boo xam ni baax ci ñi daal ñëwuñu foofu waaye indi leen huile Akpi Akpi wanoon leen sànq graine bi ñu waat savon teint marron PM savon teint marron chocolat savon teint marron chocolat ngi noonu ak ñi nga xam ne ñoo ngi ànd ak ñun dañu seetaan nekk fi ci diwaanu Mbour ak li ko wër ak li nga xam ne moo di poudre Kigelia ñu ko dee wax dambal ak li nga xam ne moom moo di petit kola nit ñi miin ko am na fii ci Mbuur ak ñi xam ne moom moo di poudre gingembre ak yeneen produit yoo xam ni mbokk yi nekk fii ci Mbuur dañ ko itteewoo muy li nga xam ne moom moo di mélange bisaab kel ginger yooyu yëpp ak savon euh, teint clair boo xam ni curcuma la ak trois huiles rapides boo xam ne dafay baax lool ci yenn cër yi 77 510 54 21 Mbour Géej ak li ko wër ak huile de chabet yéen a ngi ko gis noonu mbokk yi seetaan ak déglu te itteewoo produit te nekk fii ci diwaanu Mbour woote leen 77 510 54 21 77 510 54 21 yéen ñi nekk Mbour ay huile de moringa huile de chabet huile baobab ak ay crème yoo xam ni dafay baax ci réew ñu ko dee wax vergeture. ñenn ñi am ko muy lotion ak leneen loo xam ni daanaka huile de collagène mu baax loolu ci der ndax dafay noddanti der bi ba du ras ak huile rapide trois huile rapide ak savon yi nga xam ne mooy di savon moringa baax lool ci wàllu der ak yeneen i produit yoo xam ni daanaka rek ay bisaab sirop bisaab seen cabinet bi dafay koy defar ak sirop yoo xam ni dafa jëm ci wàllu ginger gingembre ak li nga xam ne moo di gamme bioforma muy Biofarma gamme bi sirop bi ak ay crème pour wàllu sein ak ay crème yoo xam ni daanaka rek amul lenn lu ci gaañ lépp lu naturel la ak ay huile yoo xam ni ñëwaatoon nañ ci muy huile ak pi mu baax lool ak gamme goo xam ni huile la ak crème mélange gamme ak pi moom tamit mu baax lool ak li nga xam ne moo di sirop. kon mbokk yi ànd ak ñun di ñu seetaan ak déglu yëpp a ngi nii ak ay lèvres roses wooteel 77 510 54 21 77 510 54 21 mooy numéro bi nga xam ne moo ñu toogal fii ci diwaanu mbuur ak li ko wër kon ku dëkk mbuur ak li ko wër lépp ngi nii yëf yaa ngi noonu crème 100 pour cent euh, Kigelia Africana crème cent pour cent fenugrec crème cent pour cent Euh, ak bi yooyu yëpp ñu bëgg nag euh, mbokk yi seetaan nekk fi ci diwaanu Mbour te dañu ko wër 77 510 54 21 crème yaa ngi noonu crème teint kon yow mi nekk Mbour savon yaa ngi noonu savon teint marron chocolat noir kon yow mi nekk mbuur kat yëf yaa ngi noonu wooteel ci 77 510 54 21 77 510 54 21 yow mi nekk Mbour te di seetaan télé bi mën nga wootee 77 510 54 21 lépp li nga gis ni ci ay produits soo ca wootee rek incha allah di nga ko mën a am ay pommade ay crème yoo xam ne day baax ci wàllu rhumatisme ak ay huile rapide yoo baax day baax ci wàllu cere ak yeneen i produits yi nga xam ni mélange la kon yow mi seetaan ak karité collagène vitamine E xam ngeen ne loolu dafa baax ci wàllu der moom leen indilee collagène karité vitamine E ak gaam goxamon curcuma ak savon nga ak yeneen huile kon yow mi seetaan ak déglu te nekk fii ci diwaanu Mbour te di ñu bàyyi xel fii ci tele Mbour bi wooteel 77 510 54 21 70 510 54 21 77 510 54 21 lépp loo ca gis lu nekk itewoo ko incha allah soo wootee si numéro boobu rek gëm naa ne di nga ko am saabu yaa ngi fii lu ñuy naan a ngi fii lépp luy produit bio lu naturel seen cabinet bio Rahma xam ngeen ne cabinet la goo xam ni France 24 ci boppam ñëwoon na seet si ko muy cabinet boo xam ni daanaka macha allah.